képp koo xam ni soxla na ci rek mën nañu contacter ci numéro bii di affiché di suñu service commercial. te di leen rappeler aussi que am na benn lien bu def ci description vidéo bi mu nekk benn plateforme bu bees boo xam ni ay doomu Sénégal ñoom ñoo ko créé ñun ñu ànd ak ñoom ci liggéey bi ñuy def donc képp koo xam ni bëgg nga ñëw soutenir ñu ngi lay ñaan nga cliquer ci lien bi nga xam te ni moo nekk ci suuf vidéo bi. nga mën a abonné wu ci plateforme boobu alors tey waa Lu Xew TV ñoo ñëwaat ak yéen ci benn vidéo analyse bu ñuy def ci série maîtresse d'un homme marié ginnaaw tey bu ñu seetaanee épisode 23 ba pare dafa am ay quelques points yuñ ci note bëggoon ci def taxaw seetlu ak yéen donc point bu ci njëkk mooy ci diggante Marème Cheikh ak Lalla déjà su fekkente ni li laal la wax dëgg la mooy monogamie la Cheikh signé donc Cheikh def na foofu erreur peut-être bi mu koy signé mbëggeelam la toppoon ah, xalaatul woon loolu mais man dama mënul concevoir en tant que musulman sunu boroom may la nga am droit am quatre femmes nga dem di takk soxna amoo luy signé lu monogamie ni maanaam ci yow ci benn ngay yem donc là il est que aussi tamit nit ñi yeewu parce que tey gis ngeen Lalla ni muy koñee Cheikh ni ko doo takk parce que monogamie nga signé bëri na ay sëy yu mu yëngal ba ci yoon lay mucc man nga signé polygame ba pare yem ci benn soxna loolu ko ne mën na ko mais tey si fois nga signé monogamie tu es obligé nga yem ci benn boobu bis boo takkee deuxième femme sa première femme mën na la topp ci yoon. te boobaa dina am dëgg sa kaw parce que yaa ko signé woon ci kanam yoon que ni ci benn femme ngay yem mais man je me que ni il est possible nga signé polygamie ba pare yem ci benn femme mais erreur bi mooy signé monogamie parce que comme cas yi mel nii su présenté woo sa soxna mën na la koñe ci côté boobu ni la carrément yaa signé woon monogamie kon doo fi takk te boo takkee bu la yóbboo ci yoon aussi tamit dina am dëgg sa kaw. donc si fois li laal la wax dëgg la que ni cheikh monogami la signé la cheikh dugg na ci lu mu xamul mën na forçante nag ba takk mareem mais après tamit yoon mën na dal ci kawam donc yéen ñi nga xamante ni si ni yéenee jublu pour takk soxna dëgg la mbëggeel day am mais nit ki loo ko bëgg-bëgg tamit sóoraaleel ëllëg parce que cas yi mel nii mën na dem ba am ku mu neex nag mën nga signé monogamie mais quand am na ay risques yoo xamante ni mi ngi ci biir te man je pense que ci sama xalaat bu gàtt su fekkente ne da nga bëgg sa na ba bëgg a yem ci moom bu la neexee mën nga signé polygame ba pare yem ci moom loolu du am benn problème. donc bu ñu resee toujours tamit ci cadre Cheikh Marème ak Lalla Lalla gis nañ ko mu teg ay stratégies yu bëri ba tey feeñal li nga xamante ni Marème ak Cheikh dund nañ ko yépp mais dañu gis ni feeñ boobu affaire yépp feeñ dafa gën a may Cheikh fit ba mu mën a jël Marème yóbbu ko ci yaayam di ko présenter yaayam comme quoi que moom la bëgg a takk deuxième femme donc man sama xalaat bu gàtt peut-être laal la am na neen nu mu doon doxale ba mën a tey pousser à ce que Cheikh mu bàyyi Marème au lieu mu def li mu def parce que li mu def nii man dama gis ni day gën a may Cheikh fit pour mu continuer li mu doon def également aussi tamit day gën a may Marème fit parce que bu ngeen gisee ni Marème tontoo ku ne xam na ne instant bii nii day fippu parce que danaan comme dëgg bi feeñ na damay dem ba jeex donc man sama xalaat bu gàtt peut-être que mënoon nañ def neneen noo xamante ni si ni dina pousser Cheikh à ce que mu bàyyi Marème ba pare te duñu egg fii ñoom ñëpp alors ñi nga xamante ne si ñooy dund ci situation yi mel noonu am na stratégie yoo xamante ni soo ko appliqué tey sa boroom kër dina revenir à la raison bàyyi caaxaan yi muy def te su bëggee takk mu takk mais tamit ñun góor. même tey su fekkente ni dañ am soxna ba pare bëgg a takk deuxième femme nañ def farata moo gën yenn caaxaan yi surtout nag ni ko Cheikh defee parce que bu ngeen dégloo Cheikh mu ngi laaj ni ko laal la yow xam nga bu yàgg ki damay doxaan mais mosuloo ko méttitlu kon ça veut dire que ni méttiwu la laal la ni ko ni nga ko defee maanaam la fait que mu doon indi Mariam biir këram ci kaw lalam loolu moom moo ko métti te loolu aussi tamit ça faut se comprendre déjà nga xam ne sa jëkkër day doxaan rek neexul rawatina mu jël ko di ko indi sa biir kër sa biir nekk sa kaw lal franchement dafa doon lu ñaaw te tamit loolu ay cas yoo xam te nit ñi ñu ngi koy dund ci société bi donc dama jàpp ni góor nekk jullit am na droit am ba quatre femmes donc su amee première femme nga bëgg tey nga am deuxième femme ma nga def farata nga takk indi moo gën tey ngay wër ci àll bi di doxaan. rawatina nag ngay jël sa copine boobu noonu di ko indi sa biir kër jabar di ko teg ci kaw lalam rafetul benn yoon donc ñu bàyyi xel bu baax a baax leçon yooyu nga xamante ni si nii film bi mi ngi koy dégager war na mën a yee ñu bëri donc beneen point bi ci toog mooy ci diggante Racky ak yaayam tey ci lañuy ñuy basé wu pour wax ci benn phénomène boo xamante ni dafa bëri tamit ci société bi muy mën naa ko tuddee sax que ni yenn waajur yi dañuy jaay seen doom ci naka mooy tey gis nañ yaayu Racky mi ngi koy expliquer comme quoi que papay Jalika Bakary dikk na fa doon ñaanti soxna digg na ko nii dina ko jëndal oto dina ko may lii dina ko may lële donc maire bi moom xoolu lan la doomam war a dund suba de mais alal bi nga xam te ne moom la ko paa bi dikk loolu rek moom moo ko ci neex bon mënoon naa nangu su fekkoon que ni Racky bëgg na laa parce que amour amul âge. mais déjà maire bi day mel ni kuy bëgg a forcer rak yi pour que mu accepte sëy bi ndax lan alal ji nga xamante ni moom la ko paa bi dig te loolu dafa doon loo xamante ne si dafa bëri man gis naa ay cas yu bëri yu mel noonu yoo xamante ne ay nit dund nañ ko des fois mère dañuy dund benn situation bu xaw a dëgër ñu bëgg def kut koo kut seen situation seen vie changé ba mu jaral leen ñu jël seen doom jàkka borom alal ñoom xalaatuñ ëllëg bànneex bi nga xam te moom la seen doom war a am ci biir néegu sëyam mais en ñoom liñ ciy am loolu la ñuy xool te loolu aussi baaxul parce que bien vrai que doom dina ameel yaay àq mais am na tamit yenn yaay yoo xam te ne dañuy ameel seeni doom àq ndax man dama jàpp ni tey sa doom waroo ko mën a jël di ko forcer ci sëy boo xam te si bëgg ko war nga ko mën a bàyyi ba mu gis ki nga xamante ni si moom la bëgganteel mu doy ko mu mën a dugg ci moom bien vrai que di nga ko encadrer teg ko ci yoon di ko moytu loolu bon di ko digal pour muy def lu baax mais kantaan nag jël sa doom naan ko demal wut koo xam da lay financé koo xam te ni si nii CFA bi day génn genre loolu moom franchement doonul loo xam te loolu la yaay warloo ak doomam te bëri na maire yoo xamante ni si loolu la ñuy dund toujours bu ñu restee ci cadre boobu gis nañ bi rak yi ñëwee di wax yaayam que am na promotion mi ngi naan ko dama yaakaaroon sax da nga naan am naa ku may financé am naa jëkkër boo xam ne mënal na ma lii mënal na ma lee ba sax boole waale ci Moustapha naan ko du sa nawle di ko xeeb te dañu war a xam ne base du say dëgg mooy mbëggeel ndax ku la bëgg dina la muñal dina la yërëm dina la toppatoo même su amul dara sax lu mu am lu mu ndaw ndaw dina ko bokk ak yow mais sëy boo ci duggee te mbëggeel amu ca début bi peut-être mën na neex mais neexaay boobu du continuer mais nag bu dee mbëggeel moom moo la ci dugal quelque que soit la situation booy dund foofu noonu lu mu metti metti di ko muñ te di nga ko mën a gérer ba ëllëg yàlla di indi la leneen te ñu bàyyi di xebaate ñun ñépp benn lañ fa yàlla te problème mu caste dafa bëri ci dëkk bi ay diw lii la sama doom du la takk parce que kii géwël la kii ñeeño la ñun ñépp benn lañ te dafa doon loo xamante ni dafa bëri ñu koy dund ba léegi certes phénomène boobu mi ngi commencé wàññeeku mais dafa des ba léegi am na famille yoo xamante ne ba léegi dañ gëm lu mel noonu loolu mooy waral parfois ñaar nit dañuy bëggante dem ba toll ci sëy parents yi indi problème donc war nañuy éviter tamit bu baax ay xale bëggante ñu leen di bañ a maye parce que kii lii la wala kële la la wala parce que kii amul xaalis te gisal ngeen ko seen beneen mbokk wala beneen waajoo xam te ne am na xaalis ngeen yaakaar ci moom. man dama jàpp ni doom tey nawle la te doom nekkul marchandise boo xam ne na ko war a jaay waxatuma laa nga koy def vente aux enchères kii moo ëppale xaalis nañ ko may kii kii amul dara kon kenn du ko may te tamit bëri na doom yoo xamante ni seeni waajur ñoo leen di ci li ñuy nekk may lancer message ñooñu tey bien vrai que yaay dafa am influence ci doom mais tamit lu ngeen mën a maytu ci lu bon ngeen maytu ko parce tey yaayu rakki moom li mu bëgg mooy rakki seet ku am xaalis pour mu mën ko yor mais na ñaan doomam boobu noonu ay promotion am di gën a yor ba mu am loo xamante ni si nii mënul na ko boppam man ko ci yor te du ko xaar ci kenn je pense que loolu moo gën tey ngay pousser sa doom pour mu am jëkkër boo xam ne am na xaalis pour mën ko defal li jëkkëram boobu am moom bu liggéeyee mën na ko am wala mu am lu ko ëpp je pense que loolu la war a ñaanal doomam moo gën mu koy pousser pour muy jéem a ut far wala jëkkër boo xamante ne si yor na pour mu mën ko di defalaale donc ñu delloo suñu xel ci côté boobu te xam ne yàlla rek moo fi nekk lu dul yàlla neen la lépp loo xamante ne si war nga ko am ci àdduna bale nga fiy génn ci kàttanu borom bi di nga ko am ñuy doyloo gëm borom bi ba pare wóolu ko teg ci xam ni lépp lu def mooy li gën day may ñii xañ ñii wala mu jox ñii lu bëri jox ñii lu tuuti mais kenn ku ne la nga am. boo ko doyloo jéem a dund ak loolu sunu borom mën na la jëlee ci condition yooyu ndax moom mooy maye mooy xàññe te lépp lu mu def rek nañ jàpp ne mooy li gën parce que nit mi ngi yootu loo xam te ne du wërsëgam mën nga yootu alal yu bari am ko doo ko fekke te doo ko jariñoo kon ñu delluwaat xel yi ci borom bi te sóoraale ne ëllëg day am alors tey point yooyu noonu la ñu noté woon bëggoon ci débattre ak yéen képp ku ci am xalaat aussi mën nga ñu ko envoyé par message ci sunu whatsapp wala nga defal ñu ko ci commentaire yi wax ji lu fi dëng ngeen xam ne ci kiy wax la mais lu jub ngeen xam ne ci ndimbalu borom bi la ñu ngi delluwaat encore une fois di tuub di jégalu ñëpp ñoo xam te ne sunu wax laal na leen di leen jox dig daja ci beneen vidéo incha allah.